salaamaaleykum gaa yi salaamaaleykum gars yi maa ngi naqarlu accident bi am di jaale ñi génn àdduna seeni mbokk li may wax ba wax ko mooy état Sénégal xam nga nan la war a def dafa war a toj tali yëpp tali yu ndaw yëpp la war a toj ñi nga xamante si nii ñooy defar tali yi di ko construire ñuy yaatal tali yi di ko def ay tali yu ngande comme Europe benn tali boo xam ne trois oto dinañ ci xaj te kenn du laal sa morom mais tali yi dafa ndaw trop accident day yomb beneen bi ci des mooy Europe lim ñu rawee dafa bëri parce que l'émergence bi ñu woote ak développement bi ñun danoo soreeg loolu danoo soreeg loolu Europe moo ëpp ay camion ëpp ay bus fuuf da nga yéex a dégg ne bus bi mbëkk na kii wala laal na bi parce que danoo xam code de la route te dañ koo jàng Sénégal code de la route da ngay dem fay jënd ko code de la route du lu ñuy jënd permis yi da ngay gis ko am 18 ans an ans dem fay ñu jox ko permis am sa waay nan waxante dëgg moo waral accident yi bus bu la rombee wala camion danga koo war a arrêté yaa ngi dégg daal di contrôler oto bi laaj ko assurance xool visite technique bi bu ko amee nga contrôler ak màggataayam moom lan moo tax mu war ko am nit ñaa ngi dee mais tamit état bi dafa war a jóg ci tali yi toj ndeyu tali yépp def ko ay tali yu mag def ko ay tali yu mag xale yi dem jàngi code de la mais dof bu jóg rek ne dangay dawal dem sa nijaay wala sa yaay mu jàngala dawal boo mënee nga dem fay jënd permis dafa yomb dafa yomb nous sommes pas des du nu ay sindax du nu ay janax du nu ay golo ay nit lan te ay nit ngeen yab ñi dee noonu tey jii seen askan ñàkk na 38 morts dafa bëri ak i blessure kan moo la wax waruñu woon a jëriñ seen waajur kan moo xam ne am na koo xamante ni soutien de famille la yaayam moom lag la yaakaar ak papam maa ngi méttilu di ko jaale ñëpp. mais lii dafa metti état da cee war a jóg état da cee war a jóg yaatal tali yi toj tali yu ndaw yépp ñi koy construire ñu def ko yu mag ngeen dem jàngi code de la route jënd bi ngeen bàyyi ko dem defi permis Europe lool la ñu rawee ñun danoo sore développement bi ni woon danoo sore moom